ak lii ñu wax yàlla na waaye ma defal hommage remercier son éminence Cheikh Seydina Mouhamed Sy may def tàmbali ci assemblée nationale daf ma tàggat en tant que jigéen jigéen ma at dafa am yaakaar ci man bëgg naa say morom bu ñu la xoole ma ci su ma demee ba mu indi ma assemblée nationale ñu def ma dab assemblée bii ma nekk damay sant sama nawle yi ma fi teg yëpp tax ma koy wax kenn ku nekk fi may na ma ceeb suñ ma mayee ceeb sama jëmm tax waaye jëmmam dañu ko wax kooku leer na sama collègue bi ma fi njëkk a nekk ma ne eh. dañ fi mu ne ma booy wax loolu sax bu yëngatu ñëpp dañ lay dégg man xam ne le respect est réciproque yar bi ngeen am teggin bi ma leen may moom ngeen ma may waaye loolu yëpp su amee tamit dañ ci fekk suñu kilifa ku mel ni le président Moustapha Niasse su ñëpp jaar rek laa jaar fekk ci le président ay mbir ñii fekk ci suñu mag yi baax suñu président soxna ay dëmbooj Cheikh Mbacké Cheikh Ndiaye et les soo nekkee ci ëtt nga fekk fa ñu la gën a yàgg comme nga wax wax nañ ci léegi suñu ministre yi li ñëpp wax rek la ñuy wax kenn saxale ñu tàngal sañu ñu fi représenté ku mel ni Cheikh Seydou Mouhamed Moustapha ñu wax suñu bakkan loolu ëpp nañu ko ndax kenn mënul jënd suñu ngor kenn mënul jënd suñu dignité lu ñu wax rek dëkk la ñu fi tagg nag ñoo ñu gën a yàgg nañ fi toog ñuy xeex nañ fi toog muy saagante nañ fi toog muy dóorante waaye lépp ñoom dañ ñu koy muñal te du tee ñoom ñu ngi fi jiitu ñoom ñu ci aussi sama goro Moustapha ak tabaarkalla li ñuy wax dama koy naan laf cat ñoom ñëpp dama koy naan am laf xam naa lu tax na di ko wax su ma ne sama goro mooy may naa ko sama goro donc xam naa ni ne famille bu baax la jógee yar sama papa moo doon wax ku yar sa doom sa doom am na devise ngoro dina mën a jàll donc xëy na sama dënn dafa tees waaye rek ci rek ci dafay ci population sénégalaise bi nga xam ne assemblée nationale lépp luñ ci wax faire jàpp pour defar ministère des finances wax ni gouvernement mais gën a liggéey davantage ndax su fekkente ne la ngay wax ci développement di wax ci wàllu lu sa askan yaakaar naa suñu agriculture tey dëkk boo dem seen agriculture moo leen di gën a dundal donc bëgg nañ ay programme yu mel ne ay PADER ñu def ko au niveau national sa programme yooyu kenn mënu cee yàcc kenn mënu cee yàcc ndax programme la yoo xam ne ku dul liggéey mënoo ci am accessibilité donc su fekkente ne def nañ lu mel ne ay PADER ak yeneen yu mel ni ñoom def ko wala ñetti région rek am na ñeneen ñuy liggéey yu mel ni yooyu leen tëral da fekk duñ ci bénéficier loolu maa ngi ci bàyyi beneen bi ci topp tam mooy tam